Bienvenue sur Salam Vision. متسابح الركبان muy Cheikhu Tijaan نحو الجنان روحي والريحان muy Cheikhu Tijaan عد الألوكة من أسير علاقة salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki mbokki àdduna waaye salaamaaleykum mbokki Sénégal waaye salaamaaleykum mbokk yi ñu ñëw dina waaj a tubaab xew xew am na fa ban xew xew am mooy sargal Serigne Baba Fassir kan moo koy def Pape Sow taaral Serigne Baba Fassir mag boobu kañ la koy def vendredi 11 juin fan la koy defee ñetti baar fantali ko bi laaj koy ak ki nga xam ni moom mooy tabarakallahu euh, marché bi euh, en face euh, salon de coiffure bi ñu koy defee nag vendredi xaral fa juma boobu képp kuy taalibe Tijaan ngay xëy ci baatu laa ilaha illa muhammadu rasulullah sëriñ Pape nee na invité na la ci xadaratu jumaa bi xadaratu jumaa boobu nag bu noppee ñu ngi def takkusaan bi nga xam ni ma ko duppee suñu maam sëriñ Babacar Si waaye nag di sare di sargal sëriñ Aliou Ba borom bu ngéwul tabaarakallaahu ñu bàyyi ci xel xam ni kon bu suñu Aliou Ba jógee bu mu jóg bu suñu Aliou Ba jógee baaxee jóg bu suñu Aliou Ba jógee Louga jóg ndax ak boo ko xoolee taalibe taalibe taalibe cheikh boobu fa séenee ko sargalee bi nga xam ne moom lay jox suñu moom Serigne Babacar Sy daawa ci kër waaye ne animation bi El Hadj Seck moom moo ko yor waaye li nga xam ne moom mooy waxtaan bi ku ñu Maam moom mooy def waxtaan bi Pape Ndeye mi ngi invité ñëpp bàyyi kenn ginnaaw bi xadara pare daañu ko bàkk bàkk fa Seydina Muhammad waaye bàkk fa mag ñu baax ñi bu ñu noppee Serigne Mamour dina jël delloo war gaa yi ci jikko yi waaye delloo war gaa yi ci yar gi waaye delloo war gaa yi ci li nga xam ne moom la Seydina Muhammad doon doxee jaam yi kon nag ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn kan moo ñu woo taalibu Serigne Babacar boobu ci sànqal suñu moom Serigne Babacar waaye nag delloo jikkal Serigne Alioune Ba borom mu ngi wul wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh